bon café ñoo leen di may seen revue de presse Mantoulaye Thioub Ndoye dikkati naa dem leen ñàkku ji ay kaddu dëgg la yu xalif général des Tidiane laas yéene kaay ne moom Serigne Babacar Sy Mansour day daal nay wax lu jëm nag ci wopp Covid 19 ak tolluwaayam ci réewum Sénégal moom kilifa gi ne Covid 19 nag nekkul ab wopp de waaye ab mbas la di malédiction di loo xam ne subhaanahu wa taala moo nu ko wàcceel gannaaw suñuy jëf moom xalif bi ne man day ñàkku ji naa te wax naa samay mbokk ak samay xarit nag nañ dem ñàkku ji vox populi ne moom xalif général bi kay ay dëggam nëbbu ko de ci wopp tam ci wàllu politique alerte yéene kaay ne moom Serigne Babacar Sy Mansour kay lu jëm nag ci député yi nga xam ne dañoo trahir war askan bi loola yi daal dina ciy àddu l'info yéene kaay ne Serigne Babacar Sy Mansour day wax nay dëggam seetu ci Masamba seetu ci ba daal dinay wax la nga xam ni nag mooy jëmale kanam askanub réewum Sénégal waaye dundal l'islam bi moom la xalif général dee Tidiane profito ci at wu yees bu jullit yi daal di nag def situation réew mi daal di woo opposition ak pouvoir waaye tam société civile ku ne toléré sa moroom ñu respectante waaye tam di ak di doxal doxal jàmm daal ji booloo nekk benn waaye tam ñu yor diine gi ci réew mi addu ci wax ci daal di cay dox sëriñ Babacar Sy Mansour ay wax moom xalif général des Tidiane ba tey ne senegale yi ni ñuy doxalee ci réseaux sociaux yi baaxul ànduma ci tey ànduma ci ëllëg moom sëriñ Babacar Sy Mansour ne jikko yi yàqu na doxalin yi yàqu na jëf ji bon na xamatuñu sax fu ñuy jublu dafa mel ni senegal làmbatu daal gu mét la ñu nekkee ci réew mi te lii baaxul moom sëriñ Babacar Sy Mansour ne waay waay la taxoon ba tey ñu tëj jumaa yi ak jàkk yi jógu fi di mbas mi bés bu fi jógee ñu tijjiwaat le soleil yéene kaay ne moom xale général des Tidiane day àdduna ak askan wi wax na ay waxi dëggam ñëwit ci ñàkku valeur gi nga xam ne réew mi ci la nekk Sud Quotidien ne daal nay dal ci kaw député yi de dal ci kaw politiciens yi nee na nag ab député la nga xam ne lañ ko tegee ci assemblée nationale du nag ñuy xuloo ci seenu biir di werante ak di waxante lu ñaaw ci assemblée ba déedéet nee na assemblée nationale bu Sénégal boog ay député yu waxante yu ñaaw ak di moo fi am wax lu dul dëgg da nga koy défendre ba tëdd ca naaj ba ànd ak moom ca la mu wax bu nekkee nag ka nga xam ni àndoog moom dafa wax dëgg yow nga jël dëgg joojee gas ba mu xóot daal di suul défendre la nga xam ni moo dul dëgg Serigne Babacar Sy Mansour ci Sud Quotidien ne assemblée nationale la fa am doy na waar ci laas yéene kaay moom xalif général bi ne assemblée nationale ci boppam moo defatul la taxoon ñu ne ab assemblée nationale la réew mi quotidien ne ci Serigne Babacar Sy Mansour na wax yoo xam ni deesu ko teggi fenn waxtu woowu tribune yéene kaay na ma boobu Serigne Moustapha président Macky Sall wax na nag ci ñetteelu mandat bi nee na président Macky Sall bu sampaateeg ndëndëm ñetteel bi yoon dana ma gis dana ma séen te dana ma dégg maa ci kaw président Macky Sall vox bu mag ci opposition ba tribune yéen kaay ne anti système kay a te lii boo moytul mën na tas opposition bi ndax itam njortu nañu ne am waxtaan gu am diggante Ousmane Sonko parti démocratique sénégalais taxawu ak pur direct news ne coalition bu mag bu opposition bi day boo moytuwul du daal di am ndax parti démocratique sénégalais Pastef taxawu Sénégal ak PUR ñoom ñoo beddi compte daal di ànd Bougane Gueye Dany daal di gedd ne bokkul ca boobule coalition Déthié Fall sàkku ñu daal di koy wax lan moo tënk coalition bu nuppi laataa muy dugg Aïda Mbodj dal ci kaw Khalifa Babacar Sall ña ànd ak Ousmane Sonko ne ñoom daal dëgg-dëgg dañ leen daal di wor PUR ndax jamono ba nga xam ne Ousmane Sonko ña ngi koy wili pande di ko toroxal di ko def naka sudul noonu fan la PUR nekkoon ba tey muy dem di ànd ak Ousmane Sonko ñoom PUR googee direct news ne bëgguñu lenn lu dul jël mairie bu Tiwaawan l'observateur ci ci waxtu woowu jox kàddu professeur Mary Teuw Niane moom professeur ni bari nay massification yu suruxal nërmeel versé yi ñoom jàngalekat yi ñu teg leen pression boo xam ne daanaka attanuñ ko Mary Teuw Niane wax ci digganteem ak Mansour Faye mairie bu Tëngéej waaye digganteem ak Alioune Badara Cissé vox populi ne ñeent fukk ak juróom-ñaar ci clandestin day daal dinañuy faatu ci géej gi gannaaw ñaari fan yoo xam ne dañuy di réer moom turbine yéen kaay ne ci wér gu yaram gi ñaari centrale d'oxygène day jébbal nañu ko hôpitaux yi fees nañu delloo oxygène jamono ji l'observateur ne waxtu woow moom kunkande digge woon na xar géej gi defu ko ña ngi koy wër wër gu metti préfet bu ndakaar ak police jébbal ko convocation ña ngi koy localiser yóbbu nag brigade bu recherche bu yof jàmmalaay waaye waxtu wan demee fekkuñu fa kunkande waxtu woowu wet libération yéene kaay di ma wax lu metti waaye lu am ca Kabrousse xale bu jigéen bii di Aysatu Michel Dieng jëkkëru tàntam moo ko daal di sàkk mu jële ca ëmb talaata la ko mat dikkal ca am doom ba ca la daal di ñàkkee bakkanam ndaw mi xam ni moom la ñu ne moo def ñaawteef googee daal daw daal di fay jabar ji ñaari doom ya ya Mariama Diallo mi nga xam ni mooy yaay soxna si faatu ne la ma bëgg lenn la mooy el ndaw mii jël sama doom violé ko ëmbal ko mu daal di faatu ci amuk doom ga dama bëgg ñu daal di koy wër jàpp ko yoon teg ci moom daan ya war Abdou Salam Dieng baay ba ne dama bëgg rek ñu indil ma el ndaw mii sama kanam ma xool nu may def ak moom yendu leen ak jàmm te bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat dee leen gànnaayoo gel yi jëfandikoo masque yi te di respecter distance un mètre yi yendu leen lay jaajëfal Mantoulaye Thioub Ndoye jaa ngeen jëf yéen itam mbokk yi ci ànd bi ak FM xibaaru bëccëg gi jeex na yendu leen ak jàmm manifestation yu am ca Kër Massar ca quartier Kër Paté ndax inondation Idrissa Diémé salaamaaleykum waaleykum salaam Alaaji Mansour xanaa waa Kër dañoo sonn sonn lañ def taay lañ def lottu lañ def ci digge yoo xam ne El Hadj Mansour nee nañ ci dara rawatina nag Euh, donte ñu ngi gis ni que ay kilifa ñu ngi jaabante waaye nee na ñooñu euh, ci ay kàddu la ñu yem manifestation bi nag ñu fàttali ni El Hadj Mansour muy unité 3 la ndaw yi baare ku ne unité 3 nag ñu fàttali ni daaw jiitu réew mi fa lañ defoon euh, seen tant yu mag yooyu ba mu doon naan département ki ñoom seen tey jii nag ndaw yi fa lañ teg ndawal baare nañ tali bi ndaxte foofu ñu fàttali ni benn voie jamono ji moo nekk di fonctionner ndaxte beneen pàcc bi sapeur yi fa lañ def seen dispositif Euh, système de pompage bi loolu nag moo métti askan bi lu ñu wax mooy euh, doyal nañ sëkk ci ndox mi nga xam ne kenn xamul fu muy jógee El Hadj donte benn côté bi ñu ngi wax ci wàllum taw waaye beneen bi ñu fàttali ni ay ndox dañuy jógee lu toll ni ay kunun di ñëw loolee nag mu nekk lu leen jaaxal te nee nañ euh, projet bi nga xam ne moo nekk phase d'urgence bu projet 2 bi noon nañ ko tàmbalee foofu pour retenir li nga xam ne moo nekk le trop plein d'eau waaye loolu suñu ko ba tax na tey ndaw yi génn ci mbedd bi fu mu toll nii sax ragement su ñu ngi génn biir alaaji passé di dem unité 3 ñu fàttali ni maillage yi buñ ko naree def rek jàppale ne moitié quartier alaaji passé fukk ak juróomi ñeenti quartier ñoo fi ne lu ci ëpp tëmb nañ euh, fu ñu jugee nii côté sant yàlla jàppale ni près près de cinq cent maisons foofee daanaka ndox mi jël na ko carrément yu ci des amul nit ñi fu ñu jaar li ci noonu itam unité 3 ñu fàttali ni Mansour daaw gaal ñoo fa doon daw dañ ñëwoon ren duñ ko gis waaye lu munti wóor ba wóor bu tawatee di ngeen fa gisaat gaal ñu fàttali nii tamit dañ ne euh, duñ fa def système de pompage maanaam daaw dañoo baare woon tali bi pour oto yi euh, mën a euh, jaar ci kaw ñu def fa ay tuyaux dañ ne ren duñ ko gis waaye lu wóor ba wóor bu autorité yi dellul ginnaaw dinañ ko saat ndaxte canalisation bu ñu def système de pompage bi waroon yóbbu ndox mi Elhadj Mansour ba tey ñuy àddoo gi yéen jàpp leen ni benn système de pompage doxul ba tax na le trop plein d'eau a fini d'envahir les maisons ba tax na askan bi jamono ji ci jàkkaare lañ ne fi nga xam ne moo nekk département bu Kër Massar El Hadj Idrissa Diémé maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal bu baax nekkoon nu ñu naan direct ci euh, manifestation fële ci quartier Kër Paate ndax ni ñu sonde ci wàllu euh, mbënd mi noonee la itam la mel ci yeneen i quartier yu nekk fii ci Dakar foofii ci Kër Massar ak itam euh, fu mel ni Jidde Caaroy kaw daanaka daal yëf yi xaw naa metti lool am na sax ay manifestation yoo xamante ni bii amoon na fa am sax ñoo amay gaañu gaañu fële ci jàmm gën si Cap Maodo itam ñëfu dëkk sonn nañu lool ñu ànd ci ci leeral ànd ak euh, kii nga xamante ni bii wala ñi nga xam foofe la ñu dëkk ci biir euh, gëstub Younoussa Baldé. quartier Sadio Guissé ci Grand Thiaroye nekk ci ginnaaw raay nord li ko dalee minuit ba léegi askan wi nelawuñu. miiru teer bi ak kanalu teer bi ne ci biir dagg na te dugg si fii ci ginnaaw raay noor lu ëpp ñeenti fukki ci ay kër ndox bi nangu na leen nit ñi nekk ci jaaxle Abdoulaye Gaye DSK. léegi nag am na ci leen loo xamante ni duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg terre bi ay milliards yi milliards lañ ciy dédommagé ñooñu dem nañu jëndi kër gu baax ñun ñi sa su ñoom nag suñu mënul defal loo xamante ni suba lépp problème bu am ci biir terre bi a aw mën nga xamante ni ñooy population bi loolu duñ ko nangu. ci quartier Fass 3 ci sant ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ab dal moo daanu ñetti nit am ci ay gaañu gaañu yu métti Malal Diallo moo ñu koy nettali. ñu yóbbu woon leen ci poste santé bu sant yàlla. ICP dafa leen war évacuer léegi léegi hôpital de Pikine. ci jàmm gën na si Kapa ndox mi nangu na quartier policier yu bëri bañu doyloo ci kaddu Abdou Samad Diouf waral askan wi baare route nationale numéro en bi ñaari fan yi kenn nelawul maanaam ay dégâts matériels situation bu compliqué la ñuy dund actuellement ñuy ñaan état bi nu mu gën a gaawee mu wollu population bi parce que lii suñ ci jógul nu mu gën a gaawee dana gën a doy waar ci unité 3 ci Kër saar situation bi métti na lool vraiment situation bi garaaw na trop trop trop pour l'instant parce que euh, ndox bi seeg si na mu yegg woon daaw bi yi daw ñi jigéen ñi ak xale yi mënuñu génn ci kër ya te soxla nañu ay gaal yoo xam ne war nañu mën a ñëwaat génnewaat nit ñi ndax situation bi tolluwaat na fa mu toll woon daaw li ko dalee Grand Yoff ba Kër ma saar jaaree ko Caaroy jàmm gën si kambaaw taw bi jur na njàkkare ak jafe-jafe ngir askan wi maa ngi lay euh, jaajëfal euh, ki nga xam ni mooy yënu Younoussa Baldé ci gëstu boobee li mu wax ci Ndakaaru na la mel itam ca diwaanu Fatick ñoom itam wuy wàllu la ñu wax amuñu fu ñu jëm la fa yàqu bari na lool Alioune Sonko. fii ci diwaanu Fatick. famille bëri jamono ji ku nekk a ngi wut fi nga xamante ne fa nga mën a denc say bagage li ko waral mooy ndox mu bëri bi nga xamante ne wàcc na fii ci diwaanu Sine loolu nag mu nekk situation bu doy waar ay image yi nga xamante ne ay nit dañuy jéem a xool naka la ñuy rawale seen ay bagage génne ko balaa ndox mi di ko yàq ñoom nag ci bii la jaaxle ñi interpellé président de la république Macky Sall mi nga xamante ne fii la dëkk ci gox bi. vraiment dalal ñu ñëpp jaaxle nañu waaw kër fees nañ def naa lu tour pour ñu won la nag waaw ñaxtu ñaxtuwuñu mais dañu lay won li nga xamante ne bi tey nag moom moo nekk ci dëkk bi vraiment pour aussi nga defaat appui encore waxaat gars yi xamante ne bi ñu ngi derrière ñu jéem a gën a góorgóorlu jéem la wax li nga xamante ne moom moo nekk ci dëkk bi. ci biir le contexte yi les sinistrés di xaar ndimbal bu état. ci ni mu gën a gaawee ndax jamono ji situation bi compliqué na lool te famille bëri boo moyul ci bitti lañ nar a fanaan Aliou Mbaraxa Sonko moo doon jokkoo ak depuis Fatick pour Zik FM. Sonko alliance Sauver le Sénégal sàkku ci nguur gi mu déclenché waat plan bu Orsec ndax askan wi nekk ci banlieue bu Dakar sonn nañu lool ci inondation yi faaw ñu utal leen solution Babacar Mbaye Ngaraaf ci téléphone Mamadou Fofana. jàpp nañ ne amul leneen e na sauver population yi ci situation bi ñuy vivre dëgg la neexul ci xol ci benn Sénégalais a nangu ni ginnaaw bu ñu dépensé cinq cent onze milliards ak juróom-ñeenti at ci fukki yi nga xam ne war a xeexi mbënd wi tey réew nekkaat ci wàllu inondation yi toll loolu nag tekkiwul ni amul résultat feneen waaye ñun yàgg nañoo wax ni boo xoolee lu ci mel ni Kër Massar ak yenn parti ci banlieue bi liggéey yi fi ñu toll bu fekkee faraluñu jéego yi yokku taxawaay bi dara mun datee bi inondé bu fekkee fekkee ne Sénégal taw na taw yi mu tawoon daaw wala at yi ko weesu waaye boobu jamono nguur gi rawatina ministre Omar Gueye bi nga xam ne liggéey bi dafa tàmm woon rek au mu koy wax baral liggéey bi waaye mu nekk ci communication loolu nag moo jur tey rek situation bi nga xam ne moo am ci banlieue bi. Babacar Mbaye Ngaraaf moo doon wax noonu na le ñu ngi may wax ni tuddul kër Paate euh, kër quartier Alaaji Paate la tudd waaw kay kon Alaaji Paate ci kër Massar ñoo sonn noonee merci Idrissa Diémé ñu wax ba tey ci leneen euh, jamono ji Ndakaaru ñoom di jooy ndox a leen sonal am na waneen askan woo xam ñi ngay jooy ndax amuñu ndox mu ñu naan ay at a ngi nii loolee doon lu doy waar fële ca diwaanu Saalum la ci euh, dëkk yi nga xam ni euh, ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo wër fi nga xamante ni bii moo di Lindiane nekk ci commune bu Kaolack dañu mujj sax dem ay Kamato ki Siresor ngir mën fa am ndox mu ñu mën a naan ñu fekk fa Aline Kane. Badara Sissoko moom mooy ki yore wàllu communication association servir Lindiane mu ngi wax nag jafe-jafe wi askan wi di jànkonteel si wàllu ñàkkum ndox. 42 quartiers moom moo nekk Kaolack Lindiane kese moom moo nekk quartier boo xamante ne amul branchement à domicile donc tey sonn nañ donc nag population bi ñoom ñoo jugé nécessaire à ce que il est temps que ñu dugal ñu am ay robinet à domicile ci ci seen biir kër yi. ndox nag tey mbirum ndox moo ñu yëkkati tey sonn nañu torox nañu ñun waa Lindiane ci ndox du mag du ndaw du xale du góor kër yee jóg di rooti xaaju guddi. nee nañ nag autorité locale yi daanaka jàppalewuñ leen. donc nag bi loolu amee en 2018 on a commencé affaire faire des démarches. dem wax ak le directeur de l'hydraulique monsieur Babou Diouf commencé entamer procédure bi ñu amoon un devis de neuf millions bi loolu weesoo ñu dem man ma dem ak le président CC kii ñu toog ak Mariama Sarr wax ak moom ex exposé ko le problème. gox bii nga xamante ne mu ngi bokk ci commune bu Kaolack amul réseau Sen'Eau. Aliou Kane Kaolack Zik dawalkatu camion ya nekk nag fële ci diwaanu Saint-Louis ñoom téeméer la ñu doon fay muy droit stationnement dañoo xëy ñu jële ko téeméer yóbbu ko ñeenti téeméer loolee lañu ñu ni teguwul fenn ndax duñu liggéey di perte mooy di tax ñu commencé banque seen loxo yëglu faawu kilifa yi dellu gannaaw kañu tuumaal mooy maire ba Mansour Faye ñu fekk ca ndax Babacar Niang dawalkatu camion yi yab suuf nekk fii ci ndar ñoom nag mer nañu bu futt jëmale ko ci autorité municipale yi ñoom a yóbbu deux dawatu camion yooyu nga xam ñu ci ëpp nag ay ndaw yu daan seen doole la ñu di wax ni nag ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métti sax gis nga ndar ndar fii camion yi kenn sóoraal ñu dara booy yëpp ñoo ngi fii ku si wut C1 Dakar ngay def te Mansour Faye c'est le ministre transport service la booy yi ku si wut permis daa fere cent mille francs bala nga koy am du yoon situation boobu tax sax ñoom ñu nag dañuy dem grève ñun app nañ ko un mois bu naree un an sax daañ ko def parce que son travail pas liggéeyuñu dañuy taxaw nañ ko régler nañ ñun ña am naqar ñu wax leen fi mu toll nii camion suuf yëpp nag ñu nga gaaree chauffeur si di ab kaddu bu ànd ak li ñu bëgg jóge nag ci autorité municipale yi fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik ñu wax ci wàllu politique coalition bi ñuy xalaat mu taxaw ci parti nekk ci opposition bi euh, ngir waajal élection locale yi en tout cas wareef la ci ñoom ñu defal seen toogaay ak seen taxawaay ndax lii di élection locale yi test la ci ñoom ci présidentielle yi 2024 yi njàngatum analyste politique taskatu xibaar Bakary Domingo Mané coalition bu ñu wax ne dañ koy taxawal diggante PASTEF PDS PUR ak euh, taxawu Sénégal pour man su fekkee loolu antu na dina changer configuration landonnée politique bi par rapport au parce que PDS quoi qu'on dise toujours le parti n'est-ce pas de l'opposition su fekkee moom dafa décider lëkkaloo n'est-ce pas ak PASTEF ak PUR ak euh, taxaw Sénégal ça veut que coalition boobu dina taxaw taxaw boo xam ne daal dañ koy ràññee ci élection locale 2022 localité bari bari bari bari coalition boobu mun na ko gagner donc pour man su fekkee coalition bi taxaw na vraiment ça veut dire que élection locale bi di ñëw vraiment coalition boobu dina dañ dañ koy ràññee parti yi ko am vraiment dañuy am poids électoral boo xam ne nit ñi xam nañ ko baax a baax. nañu ci boole itam ci boobu boobule coalition collaborer ak mouvement citoyen yi nekk ci gox-goxaat yi ndax néew néew na ku mën a gagné ab localité lu dul nii danga ngaa boole ñooñee ci sa xeex ndax am nañu doole léegi te askan wi gëm nañu leen. ñu teewlu ba tey njàngatum Bakary Domingo Mané parti yooyu su fekkee ñoom dañuy décider vraiment lëkkaloo et eh, joxante loxo c'est que quelque part am na loo xam ne daal passé na su fekkee Sénégal intérêt Sénégal moo leen ñor bu boobaa question de leadership yi dootul posé wu li ma soupçonné mooy su fekkee coalition boobu taxaw nañu ko leaders yi ils se mettront en retrait choisir des profils yoo xam localité bu nekk en fonction de l'ancrage du parti ñu tànn ñan ñoo war a jiite collectivité euh, loolu loolu day faciliter encore lëkkaloo bi buñ ko taxawale duñu tëj bunt yi lu leen soxal mooy ambition gagner élection locale 2022 ku mun naa vraiment participer ci victoire boobu xam naa ne dañ koy ubbul bunt mun na yomb lool su fekkee ñoom dañu jiital Sénégal lu la soxal mooy vraiment faire tout pour que en 2024 opposition bi jëlaat nguur gi muy jàngat bu bàyyeekoo ci Bakary Domingo Mané nekk taskatu xibaar en tout cas boobu la coalition mun naa am doole lépp dafay aju nag ci ñi koy sos am lu ñu tabax lu wóor lu leen mën a wan seen ëllëg waaye boole ci itam askan wi joxe seen xalaatam ci fi réew mi toll. loolu la ak yeneen ci ay tomb ci élection yi ñu dëgmal ak coalition yi nar a judduwaat joxe geneen xaj kanam ci wàllu politique muy njàngatum Léopold Tamba. élection locale yi miim réew di waajal ci bisub ñaar fukki fan ci weeru janvier 2022 lay am yenn parti politique yi boobu ak léegi nag ñu taxawuñu teewul ñu nemmeeku aw doxalin ku yées ci ni parti politique yi di lëngoo di laamiso ngir doon benn saay misaal gi di coalition bi bëgg a boot Abdoulaye Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko yit ñii ñu lim te aw doxalin ci langue politique politique bi waroo ndax daañu ku ci nekk amee aw xalaat gu yees gi tax ñuy xoolandoo benn barab ngir daan Benno Bokk Yaakaar rawatina su ci sëriñ Moustapha Sy dolleekoo ci bile ànd bu ñu pàtte ni ñeent ñooñee ku ci nekk sa parti politique nga yor waaye lii di élection locale yi mënuñu rek tënku ci liile ndax mouvement citoyen yi ak waa société civile ba ci ab citoyen cote ñooñee ñoom it am nañu kàddu fa ñu dëkkee ba di ci meññal ay citoyen yu bari yi bootu seeni gannaaw it ña ca am baat ñoo ngee dirante mbagg kaccane bëgg nga foo cosaanoo nga doon fa maire lii lee di wundu ni élection locale ya laalee na ak mbirum bopp sa bopp parti bi soog a teew ñu ngi annoncé benn rencontre diggante Babacar Diop njiital FDS les Guelwaar ak Bougane Gueye Dany njiital mouvement gëm sa bopp euh, fële ci cité Kër Gorgui rencontre la bu xëy na buñ ca noppee dinañ def déclaration beneen rencontre diggante ministre de l'intérieur ak euh, ñi représenté euh, pôle coalition parti politique yi nekk ci réew mi xëy na ngir kat mën a am lu ñu élaboré ci waajtaayu élection yi surtout ci wàllu caution yi ñuy joxe ngir mën a bokk ci yooyu lay élection président commission électorale nationale autonome euh, du Sénat moom na incha allah euh, di euh, mi ngi ci terrain bi moom président Doudou Ndir ak équipe ngir xool installation commission yi ak ni ñuy waajaale élection yi nekk suñu kanam muy tournée boo xamante ni bii rek daf koy def bi direk jëm ci nu ñu mën a waajalee yooyu lay élection nga xam ni war naa jeexee ci maison de la femme bi nekk ci commune bu yëmbal nord ci banlieue bu Ndakaaru ñu ngi ñuy fàttali saa si ñu ngi ñuy yëgal ni jamono ji tembe ndaw yi dëkk ci Kër Massar ak li ko wër dañoo baare autoroute à péage bi diggante caaro yi ak euh, Kër Massar dañ ko baare fi nekk nii wata demul wata dikkul ci kaw euh, APH bi ña fa nekk sax am nañu ñu alerté way takk der yi xëy na ngir benn intervention ci wàllu la tax ndaw ñi manifester inondation bu metti bi ñu jàpp ni kilifa yi dañu leen ci seetaan ngir ñu fesal seen mer ci anam googe kon fu nekk nii dem beeg dikk bi xaw na jafe lool euh, ci euh, autoroute bi ñu wax ci leneen di pandémie coronavirus am na juróom-ñaari nit yoo xamante ni bi faatu nañu def nañu test Euh, itam ci ay nit cent quatre-vingt-sept cas yu bees la ñu am euh, cent quatre-vingt-sept ah ci vingt-quatre heures bi lu mooy loolee nag euh, lu toll ci treize mille six cent quarante ñoo nekk ci sous-traitement maanaam ñu leen di faj ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk ci Sowetas muy réanimation bi wopp ji duggee Sénégal ak léegi ñi faatugum tollu nañu ci mille six cent quarante-huit personnes lu mooy loolee nag euh, am na ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci l'hôpital yi ak ci dëkkuwaay yi ñu leen di facc am na ci trois cent quarante cinq patients ay hémodialyse équivalent su euh, douze pour cent euh, ci ñi am Covid dix neuf ak ñi am ay insuffisance rénale cronique ak itam ñeneen ñoo xam ne ñu am yeneen yeneen xeeti tawat. yoo xamante ni bi xëy na ñu ngi koy dundaale ak Covid 19 am nag taxaw ak jéego yoo xam ni def nañu ko ci ci anamuk ñooñee nu ñu leen mën a taxawoo ci euh, faj leen ci bu ñu amee Covid 19 fekk amoon nañu tawat chronique déjà yi nekkoon ak ñoom. ajaratu ay suñu nga tey jii ci suba dellu soit na ci matuwaay yi gouvernement bi jël ngir ñu am wopp yooyee te amaat Covid 19. ñi am feebaru ko roño ak hémodialysé yi ñoom la jàngoroy mbas mi di gën a laal professeur El Hadj Ferika chef de service néphrologie bu Le suñ defee Covid bu grave mooy loolu ñuy nécessité réanimation la day yokk taux de mortalité bi. première vague bi amoon nañu ñetti téeméer ak presque juróom fukki malade dialysé chronique entre Dakar Ziguinchor ak Thiès saa yooyu defoon test Covid bi amoon nañu déjà feebar. ñiy faatu ci ñoom bari nañu ba tax na ñiy dund ak feebaru roño dañoo war a jël seeni matuwaay. pexe bi mooy dañu respecté mesure barrière yi. am instant surtout muy jël vraiment yi ñu amoon yu vacciné wu bi ñu amee Covid bi vraiment forme yu légère la ñu def. mbas mi laal na bu baax secteur du transport acteur routier yi di ci bay seen waar góor xumma. nañu jëfee recommandation yi muy passager yi rôle bi am. yeddaan leen yedd suñu bopp feebar bi nekkul fi kenn feebar bi politique feebar yu wàllu wér-gu-yaram la. mbas mi nekkul jàngoro bu ñuy daw maladie infectieuse la ñàkku yi dina tax ba ñuy loru ci lopitaal yi dinañu wàññeeku bu baax. ajalaatwaay suñu ngi maa ngi lay jaajëfal am na benn quartier bu ñuy wax Balanta mu nga ca diwaanu euh, Casamance euh, ca département bu Goudomp ci région bu Sédhiou benn benn fajkat euh, ñu koy wax guérisseur traditionnel amoon na juróom fukki at ak benn benn jabar la amoon na ki doom daa xaru takk buum ci baatam daal di sëndëmtalu nee ñu nag doon na ko wax euh, ay bis yi ñu weesu yëpp naan leen boo sàgganee daal li mu am ci ay problème du mën a ànd ak moom di dund dana jeexal ak dundam na mu ko waxee woon nag mujj na koo defee noonu daal dina yeew buum ci baatam ay vers vingt trois heures lañ ko gis muy sëndëmtalu fekk dee na daal dinañu nag euh, gendarmerie ñëw na daal di ubbi enquête nag def li nga xamante ni bii moom moo ko war ci wàllu boobee ngir xool euh, lan moo sabab faatum góogale ca boobule diiwaan la ñuy des ay bi yoon dañuy wax ci euh, xalifa bu bees xalifa général euh, yoo xamante ni moo jiite kàllu naa yi cheikh bu naama koli la tudd imam ratib bu commune bu ñamoon moom nag intronisé nañu ko teg nañ ko ci bopp xilaafa ga ci teewaayu ay kilifa yu bëree bëri moom nag euh, ku ñu xam la ci wàllu njàngum diine mu ngi jàng sax fii ci Tiwaawan leeral yi ngir ñu xam moom mooy kan ak Abdourahmane Diallo. imaam ratib bu commune bu ñaamoon la ñu tàbb mu doon juróom-benneelu xalif général bu kalunaay cheikh bu naanakul yi ñu ngi koy introniser ci kanam mbooloo mu bëri lool jóge ci ay gox yu wuute ci Casamance di doom ci mamadu Mamadou Kanjumbe xalif général bu kalunaay bu yees bi mu ngi wuutu ci xilaafa gi Mamadou Kaolack Badji mi nga xamante ne na juna boromam ñaari fan ci weeru juin bi ñu jënn bu ñuy sukkasnikoo ci ay jegeñaaleem cheikh bu naanakul yi mu ngi jàngee ca cité religieuse bu laata nag muy ñibbisi toog ci wetu papam consolider li nga xamante ne moo di ay ak yu mu am ci wàllum jàngum alquran jamono ji mën nañu jàpp ne ay défi yu bëri lool ñoo nekk di xaar ki nga xamante ne xalif général bu kalunaay bu yees bi moom mii di Cheikh Bounana Kouli mi nga xamante ne xam nañu ko ci wàllum simplicité am maîtrise des principes de l'islam ak li nga xamante ne moo di engagement communautaire cheikh bi war na liggéey bu baax a baax ci li nga xamante ne moo di développement socio bu kalunaay action sociale ci biir commune bu ñaamoon na Abdourahmane Diallo di jokko kenn ca Sigicoor ngir si FM. xibaaru bitim réew. Abdourahmane yal na yenu kalu naay woyof ci kawam. Mali fukki soldaar ak juróom la rey am na lu ëpp ñaar fukki yaam yi gaañu gaañu ci attaque bu ay jihadiste nee nañu ñoo ko def loolee am nag euh, ci localité bu ñuy wax euh, Nokara mu nga mu nga nekk ca diggu xolu Mali. ñu wax itam euh, kii di Angela Merkel njiitu réewu Allemagne ak bu Poutine njiitu réewu Russie daañu amal jotaay waxtaan tey jii jotaay waxtaan bu xëy na mën naa nekk sax bu mujj xëy na euh, laata Merkel moom di jeexal nguuram waaye li ma ta fàttali mooy Allemagne ak Russie ay euh, jamono ngi nii yoo xam ni seen diggante taxul woon moo tax lool. xëy na dana doon nag kon bi lu exceptionnel lu daañu dëppoo ci ay kàddu ngir mën a tegaat doxalinu ñaari réew yi ci ab ci ab raay ngir kat xëy na am yenn yu ñu bokk ci wàllu doxalin ñaar fukki simili benn moo tax toftalu ci euh, benn waxtu. Baye Manta salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. bëtu choc footballu géej lañ koy door rek Sénégal mi jàkkaarloo ci saa si temb ak euh, Uruguay ah. waaw ne sax match bi jeex na léegi de. ah jeex na. waaw moo am ndam nag ci kaw oh, oh. benn bal ci benn. waaw a waay. waaw xam ne moom xam nga nii moom kon ay. lan la moom match yi. coupe du monde bi kon kon jongante coupe du monde moo commencé. moo commencé waaw. ah yee. waaw xam nga Sénégal nag tey kon loon tàmbali na compétition ci digganteem ak Uruguay foofu nag euh, ca euh, complexe Luzhniki yi nekk ca Russie kon Sénégal moo am ndam ci kaw euh, ñi di waa Uruguay juróom-benn bal ci benn kon bitu Sénégal yi nag kii di Raoul Mendy moom moo dugal ñetti but topp ci kii di Nino Nino Diatta Mamour Diagne ak Mamadou Sylla kon mu mel ne nag euh, ñoom lu ko Ngalla Sylla doon yëgle rek euh, seen mbébét mooy tàmbali compétition bi ak victoire loolu dina tax nag ñoom ñu mu ne mhm. atteindre nag seen objectif lu mu néew néew néew bëgg nañ nag egg ca euh, demi-finale yi ndaxte Sénégal ba mu commencé dem ci boobule compétition ak léegi musul egg nag ci boobule stade beneen nag jongante bi ci poule D bi 16 la ci diggante Portugal bi nga xam ne moo yor raaya gi ak Oman kon poule C bi moom ci kanam tuuti nag 13h30 waxtu yi sax xam naa ne léegi mu jot ci diggante euh, Biélorussie la ak Salvador 17h30 Brésil moo ci dalal la ñuy di ni ki démb nag lañ tàmbali compétition bi Japon moom ci poule A dafa daan ñii di waa Paraguay juróom-ñaari bal ci ñeent Russie daan ñii di waa États-Unis juróomi bal ci ñeent gannaaw ma demee ci prolongation ya ci poule B bi moom démb tamit Émirats arabes unis moo daan Tahiti ñeent ci ñett ci prolongation ya Espagne daan Mozambique juróom-ñetti bal ci ñeent. ñu wax ci comité exécutif fédération sénégalaise de football dëgg-dëgg bu ñu xamoon li askan wi sàkk ci ñoom daañu soppi seen texte yi. waaw waxtu yi sax dafa mel ni El Hadj dañu laa dégg ci li ni mel nag lañu tey fas yéene nag jàkkaarloog ngir nag xool. yan nag anam la ñu tegalee texte yu am solo yi nga xam ne ñoom gannaaw ci seen campagne sax ñoo ngi ko doon yëgale ni ki noonu tamit ak seen i naataangoo bi ci bokkoon di Marie Touré ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. commission bi war a càmbaraat révision texte yu fédération sénégalaise de football te comité exécutif bu fédération bi daal di koy teg tey la ñu amal seen réunion bu njëkk ñii nag ñoo ca nekk mu di Thierno na Diané Pape Sidi Lo Abdoulaye Cissé ak Victor Ciss mu di commission boo xam ne am nañ fukki fan ak juróom yu nu war a renouveler ngir ñu waxtaanee coppite yi nu namee indi commission bi war a proposer ay termes de référence waaye tam feuille de route ngir de groupe d'experts ñooy amal révision générale texte football sénégalais bi texte yoo xam ne dañoo wax ni dafa màgget te mu bari contestation moo tax ñu war ci indi coppite gu yaatu ngir mën a jëmmalaat football bu Sénégal fexe ba développer discipline bi ci catégorie yépp comme ni ko maditure Touré waxee woon bi muy amal campagne électorale mu des nag ñu xool naka lañ koy defee ngir mu indi benn coppite gu mucc ayib ngir ngëneelu football. soxna Fall euh, bàyyi ñu wax léegi ci afro basket góor ñi ñu koy amale ci dëkk bu set ba tubarkàlla kii gaal yi euh, Sénégal nag euh, dëgg dëgg mën nañu am titre de bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu góorgóorlu tuuti bu ñu sukkandiku ci cadre directeur technique bu Pikine basket club. waaw ma caam caam daal gis na ni Sénégal nag ak équipe bi nga xam ne nag kii di Boniface Ndong ak Ngagne de a Diop seen expérience. ki noonu directeur technique bi ak li ci nekk yëpp ak liggéey bi nga xam ne jot nañ ko amal nag dépp boobu. ak équipe bi nga xam ne euh, tey mélange la jëm ci ay mag ak ci ñoo xam ne tamit am nañ expérience di ay ndaw yi taxaw yu xarañ Sénégal war na nag mun na taxaw taxawaay gu mucc ayib foofu ca Rwanda. ni ki boobu boobule Afrobasket ñu fas yéene ko tàmbali ni ki ñaar fukki fan ak ñeent jàpp juróomi fan ci weerum septembre foofu ca Kigali na ñu teewlu Mathiam Thiam nekk directeur technique bu Pikine Basket Club. war nañ mën a taxaw taxawaay bu bu ci ayib parce que équipe bi fi nekk nii bi ñu yor nii nii nii am nañu joueurs yi nga xam ne am nañu qualité yi am nañu capacité technicien yoo xam ne aussi franchement ni ñu uufee équipe bi nii bu ci yàlla jàppee rek baax dañu mën a wax dëgg yàlla dafa jot nag vraiment garçon yi indi ñu coupe d'Afrique bi fii wax dëgg yàlla kon jëw ñu sóoraale ji benn équipe non ñun waruñu woon war a sax noon dépassé sóoraale équipe nag Afrique moom dañu war a war a dépassé xëy di sóoraale ay équipe ko basket yi di comme ni ko gars yi di match par match. parce que am nañu groupe bi am na nañu encadrement bi vraiment ñun ren daal man jàpp naa ni war ñu mun a calculer bi équipe bii la ñu ñëwee équipe bii la suñu bopp rek ñu ñi ñëwee daal suñu taxawaay. moo ñu soxal daaw. yaa ci fàttali nag ni Sénégal ci poule D bi la nekk ànd ci ak Cameroun Ouganda ak Sud Soudan. ñun hmm. de xanaa Ouganda sax moo fa xaw a këfin waaye ñi ci des moom <laughs> naa ñoo leen ñoo leen xaw ñoo leen xaw a raw ah, yaakaar bu baax a baax ci ab bi afro basket de waaw ah, tubaarkal yal na yàlla mottali ñu wax ci ah, programme euh, championnat européen tey ci aljuma ji tey ci aljuma ji foofu ca France nag seen ñetteelu bëccëg la ñuy tàmbali 19 heures Brest ak Paris Saint-Germain doon waaye xam naa nag ñuy xaar Lionel Messi ngir nag mu euh, bokk gum foofu ca euh, football gum ca Paris Saint-Germain dinañ xaarandi ba ci kanam ndaxte ki leen tàggat di Mauricio Pochettino dafa nag fas yéene bàyyi attaquant argentin bi mu gën a nag euh, tàggatu ndaxte waxtu yi gis na ne daal mu xaw na koo manqué moo tax ñu euh, defal ko mu nekk ci repos foofu ci Espagne moom ñaareelu bëccëg bi niki tey 19h Betis Séville ak Cadix la ñaareelu bëccëg ci Allemagne 18h30 Leipzig ak Stuttgart la Super League ca Turquie foofu tamit seen ñaareelu bëccëg la ñu amal 17h30 Kayseri Sport ak Demir Sport ñoo fas yéene daje